wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima taslimu baaxin laa yasaalu samada ala nabii wa rasuli ahmada taslimu baaxin laa yasaalu samada على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم السمدي يا الله يا قادر يا مقتدر yaa man ilayya juuduhu yabtadiru naajaytukal yawma wa qablal yawmi wali jaalta fitra fawqa sawmi jiitu bisal qasiidi saakiran laka bihi wa qablu liyaqutta fadlaka sintu qasiidati ti sukura walam tasal yaa maliki sakura akramtani ikrama man ma sa faal wa kullu ma attuhu min kan faal aataytani ya rabbi min ladunka shikran hakiman faraditu anka barakta li ya rabbi fi xurufi wa xayriha wa jutta bilmaarufi malaktani bi kawnika alkarima ma qaada litabsira wat تكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر نعوت السلما كافأني من ماله كفا عاد بمال خير ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله وعاد ربي ولم يكن له كفنات ناجاني الله المكرم السماد تناجيا بي كفاني الكماد وجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنسرم أصل كونتي القصيدة قارخة لعادة مفيدة أصله كونتي القصيدة xaarixatan li aadatin mufida yaa ayu yaa qayumu salli bisalaam ala lasi jaa bi ahsani kalaam ala lasi jaa bi ahsani kalaam salli wa sallim wal taqbal sal kalaam mun na ala qaarin sil xurufi bima yafuuqu sanna min maarufi linaasimil hurufi qalidi rabaa يا من كفى وسى القرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوة يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا مسليا على مستغسل القلا آمين يا رب العالمين déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba rëyal demam ga déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba rëyal demam ga xarajtu yowma sabti saamin asar li xidmatil muxtaari fi sanri safar sababu xaybatiya ana la arada an ana la arada an وأن أكون سافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي وأن أكون سافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي وأن أكون سافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي كرغلة الدو خادم الرسول xalifatu rasuli fil wusuli noobal bu engagé ba xeex ca guerre ba nuroowul ak payoor ba keroog la naan na ma dalub lislaam sëf leen ma juur leen ma danaa ko jaamu keroog la naan may rasuli fii sudaani takat may rab mu xarnu bi ani niiraani barki sëñ Tuubaa Cheikh Sidi Muxtaar yàlla na fi àggati weer mbokki taalibe yi mbokk yi topp site bi yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaara waa diaspora bi yëpp ci àdduna bi rawatina fi site bi nekk di Brésil ak Argentine ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ak diaspora bi ak bokki Europe yi ak bokki Amérique yi ak bokki Asie yëpp ñoo ngi leen di sant di bàyyi xel site bi nga xam ne euh, mooy Touba Argentine TV waa Argentine yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar te ngeen xaar ma léegi rek incha allah jërë ngeen jëf.